tamit. te li tax mu teg ko fa. moom am na ci part de responsabilité. moom am na ci part de ndax gis nga bi mu fi ñëwee. ndax bi mu ñëwee ci kër gi léegi. am na noo xam ne bu ko doxalee woon. na noo xam ne bu ko doxalee woon. moo ko gën a yàgg. kon am na noo xam ne da koy doxalee. waaye soxna dafa ñëw. def ma def ko yaay. mu def ko doom. mu def ma ma nekk yaayam. mu doon yaayam. ma def ko moom itam doom. mu def ko doom. dama koy taxaw da koy taxawal nii di ko wax di ko wax. lu may wax dama koy teg ci dëgg. lu mu wax rek lu mu gëm la. su ma ko mënul wax su ma ko mënul wax dama koy bàyyi mu noppi. waaye moom xam na man xam naa. soxna xam na ni moom xam na ni moom. moom doom laa ko jàpp jàppewu ma ko borom. dëgg la. te yàlla yàlla mi ma kii. mën maa seet. xam na ne doom laa ko jàppee jàppewu ma ko borom. dëgg la. yàlla na yàlla na ko. amiin amiin yàlla barkeel seen njaboot. amiin mu toog ba. surprise yi ñuy defal ñun. amiin